salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu salaamaaleykum chers internautes ak yéen yi nga xamante ni yéenay seetaan Rewmi TV dalee nag jàmm ci seen chaîne de télévision bi nga xamante ni moo fi nekkal askan wi comme ni nga ko gisee suñu ginnaaw ci image ak yi nga xamante ni ngeen ko gis ci li nga xamante ni moom mooy wàccaayu màggal gi ngeen fa di gis askan wi murit tijaan laayeen dem sax ba ñi nga xamante ni bokkuñu ci diine gi di def ay bis yoo xamante ne ñu koy wooye bisu safar fii ba 18 safar ñëpp ñi nga xamante ñoo nekk ci sénégalais yi ci jeunes yi engagé wu ci benn mbiru bees boo xamante ni daanaka dañuy fësal di jëmmal li nga xamante ni moom mooy màggal gi ñu jëm di 18 safar laataa ñoo dem fi nga xamante ni mooy Touba jii ñu nekk fi nga xamante ni moom mooy Castor ci organisation yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci ay entreprise jëm ko ci jaay ko ci ndekki ñi nga xamante ni ñoom ñooy mécaniciens yi ak ñëpp ñi nga xamante ni ay jeunes yoo xamante ni ngi liggéey fii ci Castor dajaloo di def li nga xamante ni moom mooy seen safar wala tey ñoo fi ne doon gëstu li nga xamante ni moom mooy boobu organisation xool naka la ñuy jëmal li nga xamante ni moom mooy euh, boobu le safar ak tamit lan moo la waral ñu engagé wu di def loolu nga xamante ni moom mooy safar gi euh, ngeen topp ñu rek ñu daal di wëy dugg ci biir xool li nga xamante moo fi am ci ay bernde euh, ci li nga xamante ni mooy ambiance waaye tamit engagement bi nga xamante ni jeunes yi am nañ ko ndaw yi am nañ ko ak ñenn ñoo xamante ni mu ko waxee sànq ay chrétien lañu mais ñëw nañ bokk ci li nga xamante ni mooy bis safar bi kon ngeen topp ñu rek ci Rewmi TV ñu wan leen li nga xamante ni moo fi am tey jii ci bis safar bi fi nga xamante ni mooy Kastoor فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤمن عن النفر waaw waaw bii mooy bii mooy troisième année ñu ñu commencé def safar gi boobaak léegi waaw bii mooy troisième année mais boobaak léegi première bi ñu ngi ko commencé woon ci benn dam mbana jëm si ñaar ba ñett jàpp juróom fi mu toll nii ci lañ nekk nii waaw di fas yéene nag bëgg mu yokk buñ mënoon am vingt mbana sax dañ koy jéem a kii ndax sëriñ Touba moom loo ko defar rek am na lu des waaw am na lu gën a neex luy ñëw loolu. gërëm Serigne Touba. mi nga xam ne moo ñu kàttanal dooleel ñu ba ñu mën lii ndax parce que lii du suñu njàmbaar ndimbalu sëñ Tuubaa képp la amaana ku nekk bëggoon nga am bés bu mel nii ni sëñ Tuubaa bu ñu jagalee ñu ñu nekk ay ndaw ñu nekk fi jaayante ko ne ñu dañ ko jibal liggéeyal nekkul lu yomb mais moom dimbal lañu ba ñoom taw féex ndax moom dimbalam rek moo fi ne fii jàmbaar amul kuñ dimbal rek moo fi ne te ku tedd gu moo ñu teg loxo mun moom moom moo ñu ñor xanaa sant yàlla suñu borom ñu jullee ci bisimilah rahmaani rahim defee ko alhamdulilah rabbil alamin daaw jéeg defoon nañ ko mu neex lool daaw tamit ñu defaat mu neex lool kon nag ren moom alaa defoon naa ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal waaw xale góor yi macha allah fa tabarakallah def nañ ba mu baax waaw ca lu wér nag ca lu wér parce que boo xoolee daaw jéeg ak daaw ak ren gi ren la gën a ëpp waaw ren la gën a ëpp waaw euh, togg ñeenti mën la. ñett ñi ceebu jënaat benn bi euh, ceebu jën plat préféré sénégalais waaw. ah en tout cas sant yàlla rek safar gi de moom defoon nañ ko daaw fekkee ko déwén dañuy dollu di sant yàlla ñaan yàlla tamit déwén incha allah ñu teewee ko nii. ah safar gi léegi amul murit amul amul tiijaan amul chrétien. ndax fii nii nga gis nii am na ay chrétien man mi di wax ak yow Tidiane laa taalibe Cheikh laa mais yàlla dafa dogal ma jël sëñ Touba def ko sama xol bëggal ko sama bopp. de ce nag bu ñu gisee jeunes yi jeunes yi engagé wu muy muy muy muy muy euh, ñoom ñëpp engagé wu vraiment loolu lu rafet la daal. waaw bés bi sant yàlla rek xam nga ñun moom ay ndongo lan taalibe sëñ Touba lañ te bës bi dañ koy xaar dañ koy yàkkamti lool. moo tax nag bu ñëwee dañuy lépp lu ñu mën ak lépp lu ñu am lépp lu ñuy def dañ koy bàyyi nekk ci rek ba 18 safar jot. falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaadamunin anin nafar haditu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man. waaw waaw mécanicien ñi fiy jaay ak jàngkat yi ñi ba ci fii ñu nekk nii ekool la ñoom ñi ngi fii na sax ci safar ñëpp ay entreprise yi nekk fii ba ci rajo bii di Rewmi FM ñoom ñëpp dem nañ seen participation pour ñu bokk liggéeyal Serigne Touba te ñëpp ay taalibe lañ tey xol yi ànd nañ ñëpp ànd nañ toog waxtaan waaw jëmmal bis bi daal waaw. waaw liggéeyu Serigne Touba moo moo commencé feeñ rek liggéeyu Serigne Touba ndax liggéey bu baaxee dëgg. ndaw ñi dañ ndaw ñi dañ ciy intéressé wu waaw liggéeyu Serigne Touba moo ci commencé feeñ bu baax nii rek te ñi ñaan mu yokk ndaw ñi gën ci yokk waaw ñuy gën di def lu baax daal bu ñu bëree ci yoonu murit bi rek bu soobee yàlla lu baax day gën di am waaw. parce que lim ñu defal moo tax gis nga dinaa wax leen nga xam tey ñu taxawee def fi nii yamal xiyam buñ demee Serigne Touba ñun ñooy taadal atte ba yamal xiyam atte bi ñun ñoo xam ne ñu murit ñooy taadal atte bi xam nga lu tax dañ dem yamal xiyaam war a dugg àjjana nañ xaar sëñ Tuubaa ndax suñ ko xool ak loxoy neen sëñ Tuubaa bu mu demee ci géej lu mu waxoon maa ngi dem liggéey su ma ñëw ngeen añ añ ngi ni tey koo gis mu wëgg sëñ Tuubaa rek moo suñu borom jox na ma nafsu doomu aadama yi moo ruuy lépp ku fi nekkal sëñ Tuubaa moo la fi nekkal ñëpp dinañ ñëw ñëpp ay ñëw ci sëñu Tuubaa parce que liggéeyal sëñ Tuubaa kese moo wóor lu fay def lu liggéey sëñ Tuubaa da ngaa perte moom mi ci ceeb bi ceebu jën ba ak ceebu yàpp bi di waajal màggal ba rek incha allah ah lu baax la de man moom maa ngi leen ci encouragé bu baax parce que man moom c'est ma première fois may assister safar. macha allah ala daw mi ba ngoon fii ba guddi daal ñoo ngi fi waaw beneen del moom macha allah fu waay ñëw rek di nga lekk ba suur incha allah waaw di leen sant di leen gërëm ndax borom bés bi moom loo ko defar rek jar na ko comprendre nga xale yu góor yi tamit ay jàmbaar lañu ndax demuñu si suñu iñaanuñu wax dëgg yàlla dañoo bokk waa koñ bi euh, defar ba mu baax. dëgg yàlla defoon nañ ko ren yàlla nañ ko fekkee at yu baree baree baree bare yàlla may ñu gudd fa nag wér borom bés bi nag moom kenn mënu moom ndax bés tuuti borom lay tolloo kon nag sëñ Touba moom macha allah ci kaw ci kanam rek incha allah. te biñ koy doog a door benn cinu meew lan yoroon benn cinu meew lan defar fee seddale ko nit ñi deuxièmement bi gis nga ko ñu defar ay quelques cin troisièmement bi nga leen jënd ci ginaar ni mu toll te incha allah ci kàttanu yàlla déwén nag la ñuy daaneel fii. ñaari nag i ñuy fii waaw sëñ Tuubaa na lool te jaral nañu lépp lool. salaatu lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun li jaada moonin nafar waaw waaw programme bi day wéy ba ngoon ndax boo xoolee ni ñu commencé suba gi dañoo imaamu koñ bi fii ñu ñëw jàng ay kaamil fii nii bi ñu jàngee ba pare ci lañ jublu ci ndekki yi joxe ndekki yeeg yooyu après ci lañ jublu ci añ yeeg yooyu bu ñu paree nii ispitar xëy dañuy ñëw fii jàng ak ñoo xam ne dañuy jàng benn benn benn benn waaw bu ñu paree cant gi nag day dem ba ay 19 heures yooyu soobee waaw. en tout cas daal damay dama leen di wax nañ topp ndigalu sëñ bi rek ndax sëñ bi lépp lu mu digal rek defe naa ne lu baax la bu nekkoon lu baax duñu ko digal nañ topp si ginnaawam rek lépp lu ko lépp lu mu wax ñu def ko ñu def ko incha allah. xam nga loolu dafa neex xam nga senegal ñun ñëpp benn lan muy murit di tijaan di laayeen di xaadir ñëpp benn lan parce que boo xoolee sëñ Tuubaa wér bu wér bu ne jël na ko doo ko jël wér du murit doo ko taxawal tarixa murit kon xam nga ne ñun ñëpp benn lan ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te it lii maanaam dugg raw la rek lépp lu ci waay def ca kaw ca kanam rek waaw moo tax gis nga chrétien yeeg tijaan yi fii ñi fi nekk sax foog naa tijaan yi ñoo ëpp murid waaw gis nga ñu ngi nii ñu ngi ci liggéey bi di defar ginaar yi di defar lépp waaw incha allah lépp lay baax misluhu bi fadlillazi kawni habiban lustahar salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu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 wa fi kulli sahrin zayd ribhi wa fi safar salaatu lazi fi kulli nga xamante ni wax nañ ko fi nga xamante ni moom mooy euh, Castor ci bi safar bi nga xamante ni ñi nekk fii ñu ngi koy amal ci safar gi fii ba nga xamante ni moom mooy 18 safar ñi nga xamante ni ñoo ñoo nekk ci bërëb yi nekk ci biir Sénégal rawatina si àdduna sépp dañuy def li nga xamante ni moom mooy safar donc li nga xamante ni wax nañ ko fii gis ngeen kàddu yi nga xamante ni jëriñ ji wax na ko ñi nga xamante ñoo fi nekk nekk ci waañ bi wax nañ ko même sax ñi nga xamante ne sax euh, bokkuñu ci li nga xamante ne mooy euh, murit nekk ay tijaan yu ni mel ba sax ay chrétiens gis nañu fi ñu ñëw liggéey bi loolu day certifié li nga xamante ne moom mooy l'universalité euh, de Serigne Touba donc mu nekkoon fi mu nekk nii fépp fa dem ci àdduna si fépp fa mu nekk li nga xamante ne mooy safar gi mi ngi am ci biir réew mi di am fépp donc ñoom fi tey àndi ko waa Réew mi TV ngir amal li nga xamante ni moom mooy gëstu ci safar yi nga xamante ne mi ngi am ñoo di dikk daje ci yeneen jotaay ci yeneen reportage fi nga xamante ni mooy Réew mi TV ngeen wax rek loolu def abonnement xaarandi li nga xamante ni moom mooy télévision Rewmi TV euh, fii ci Castor euh, pour les besoins euh, du Magal de Touba 2021 jërë ngeen jëf مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا بعد هند مقلد